neex yàlla dara musul ñaaw sama diggante ak moom te dara du mus a ñaaw ndax Matar ku ma yéene la may toog ay guddi yi du ma am dara ma daw wax ko sama problème mu fajal ma ko lu kenn dul yëg buñ ko yëgee sax ci man la mu yéene ma nag bokk na li tax ma gën a yàgg foofu Matar. ci gars yi na tax ma gën fa yàgg. kon bëggoon dem bu yàgg. mais dama dem lépp day rafet. amna solo lol euh dama fa nekkoon difa liggey liggey bu rafet euh, tag nga Matar parce que mo nekkoon sen PDG mais sa ak Sidi bi. ah sama ak Sidi dafa am problème ndax am problème motax mu demee ni mais pour man bu amé problème mën nañ ko régler neneen. ndax man xawma lu ñaaw. mais Sidi mi def ni nako arrêter mm-hmm ñi def ci tiktok bi yëpp xamna parce que dama yagg ak Sidi and naa ak moom 5 kan ans de carrière au ma 4 ans xamna ko bu baax lim ma xamal ben xamal na ko témèr ta bu yagge nak nak damay anu sës ndax tay àdduna yëpp ñi ngi manan war kat la man du war kat man damay gore ba xey dee man sama jëgër lan la am sama jëkkër situation bi demee noonu day tëgg dama ko xeex ngir lan bëgg sey ak mom sey bi yàqu sëy be njëkk a yàqu avant affaire Sidi bi gaay dañ ci profito bind ni rek mais man ma xam li ma xam. sëy bi tas naa rek mu def 1 mois. di nga tase. billaahi te man coowu waali bi kañ la samedi. mu tugul une semaine sax. coow li lu indi coow li bàyyi sa bay mo indi coow li donc. te bi li indi coow li man la man ma tok ñak li ma gën bëgg sama adina muy sama jëkër ma tok xolaat sama bop yeddaat sama bop xool ne man na fa laa war a jaar man ba réussir jël ay affaire góor ak affaire teg ko nee jéem a concentre sama bopp xool nu ma mën a tekki te ndey ak baay doyloo yàlla. jël beneen yoon. jël beneen yoon yoon bi du kenn ku ma ci poussé du sama yaay du sama papa du sama jëkkër bi ma doon sëyal samay responsabilité bopp sama jëkkër man sax maa ko ne may ma baat. Ah barke alxuraanu kari man maa ko ñaan ba tey ni may waxee ak nii sax mayaguma ndax kilifa yi ñu wër kenn bëggu ci takk ngir lan sëy bu rafetoon mais arrangé wu ma arrangé wu ko man ma ànd ak yàlla. mais mais gaaral bi gis nañ la fa xew démb rek faayaf gis nga la fa jot xew seetaan nga ko njàpp taxaw ci côté ne euh, trahir baaxul. man Seydi bu ma gaaralee ay ree la ma def man Seydi bu ma gaaralee ay ree la ma def ndax man bu ma doon ko gëree di Europe ku ne xam na fi boo amul million do doo fa dem deux million wala trois millions mu ko mënee bëgg cinq États-Unis ànd naag sii di vingt jours lañ ma may visa pour te di baaxu Matar ma wala ni man Matar moo ba bawoon ci Sidi bu doon Sidi Sidi rek dem na dem naa parce que ku nekk ak loo mën a supporter mais nit ku ne da koy seetee dara mais bi ma sësee dama rëkk la ma ci xool Matar du ma ku la arrangé xool ku ne tam yaa moom sa bopp. du dëgg moo tax Matar woowu ma benn yoon la ma woo te du ma waat xam na lu tax du ma waat bu ko def comme baay bi ma jur dañuy waxtaan te xam na lu bëri moom Matar kon war na mën a wax ak Sidi mu arrêté yii muy def man jàpp bu ma gaarawaale du ma metti ndax moo njëkk a daaw àbbi tànk xam nga fan laa yërëmee Sidi man Sidi xam nga fan lañ njëkk fan laa ko commencé mere nag di ko fësal dafa ma naan def sax may rafetal ne sama kilifa la garaawul mais xam nga fan laa ko commencé fësal man damay tukki nga nekk ci aar di rampe di rampe tey ba ay tournée am ndam la rek ndamu sa yaay la may dem sama yaay mooy gis ngeen vidéo bi may ñaanal noonu ma dugal ko TikTok Sidi sib sone ne man damay daw. Ah nda xam naa danaan ñun yàgguñu fa Europe ay 15 jours rek lañ fay def kon kii lan lay jooy nii mel ni ko dul ñibbi ku ko koy gis sax mën na fa lool man d'accord naa ak kalaatam mais daf maa yéex xam parce que moom xamul pour moom ni mu mel noonu la ñëpp mel man yarewuñu ma loolu. lépp ci dëggu ak ngor ak fulla ak fayda ak job moom ma tax a tey mel ni ma mel. nga focus ci leneen. focus ci leneen wax yàlla xam na bàyyi naa ñëpp yàlla te baal naa ñëpp. man mm-hmm. kay alxuraan man eh bu dee am naa lu ma jàppal nit man. Mm-hmm. melni ni amna luma jappal lu nit yalla na ma ko yàlla wan man awma xolu rànkiñ comme lima la doon wax sank rek am xolu adamo ki weer gi sa tak nga mën a waxtaanal di kaf ak mom di fook mom kon du ay ñeneen du sidi lay jappal ndax sama mag la ñoo moko deret ni ma mel moko def ci man bu ñepp nee banaya banaya banaya à cause de sidi di la de ndax moy njit may taxaw ci ginnaawam di dëggal sama bop may ma ma ñëw rek señ bi di dëggal sama bopp ndax li may def dama koo bëgg mu doon amour ci man wax dëgg yàlla yàlla dëgg la bëgg dama ko bëgg li may def moo tax xam naa ñi ñi bëgg ko ma nekk ci ginnaawam na topp ci ay tànkam ma fàttaliku Sidi fu mu amee programme ma foose ko musul am ma bàyyi programme am dem jouer musul am bu amee na génn wax wala ñeneen ñi ñu suivre sama waa group sama frère yi nañ génn wax may naa ñëpp parole musul am man Sidi ben la fatel ko fima defé standby jamono yi muy woon dem Ndeye Yirim ak farsar Sarr ñooñu samay nawlé Ndeye Yirim doon ko bax sama xarit la dañuy déganté war nañ mëna a ñëw sama kaw seen fecc ba mu neex parce que fii sotti ceeg def si la aar bi kenn mais ñëwin bi dafa dafa dafa wara jaar yoon man ñoom bala meew ma de ndax ku ñu wo nga ñëw Sidi leen wo ci sa rak nek problème. nga war ko soutenir war ko jàppale lu mën a def waroo woo kenn ku may defanteeg man man lu mu métti métti Sidi dañuy jote te àdduna du ko xam te damay fecc da nga naan kii jotewul ak Sidi dara te barki alxuraan dañuy jotee bay bay rayante ta buma ma waree dama koy joxe ba mu mat bo ne nday Ndiaye dafa jot ak Sidi motax aduna àdduna nday Ndeye Ndiaye war Sidi deug la suma ma yon duma ko mës a war yéen war ngeen ko jappé mais du war liggéey la ar yalla daganul ko du alquran mhm. li ñi def ni dañ ci wara tup après yalla tu nekk ci yalla ba ñi naan ay war ak du war man duma war kat mhm. sama jëkkeur rek la nopp bu ma day doon milliardaire ar la xam momit comme man mhm. te ku ne gis na sama sama digënté sama jëkkeur damay bañ fu ma kaw seen damay mel numa neex parce que loolu la xam dama bëgg lu bax sama papa lolo sama ya loolu la ma yaree hmm. mais ñàkkuma jom de la nah, déedéet ak ma xam fi ma bëgg dem mais na rafet man rakam la gi ñi def ni amul sens man japp sama rak la momu fa jitu lu bari amna sama diggante ak mom duma ko wax parce que ay jumeau la ko jappé kon mom warna na même buñ ko yondé sax wala muy bëgg lu neex Sidi sax mu wax dëgg dëgg la yalla bëgg Nak man xamone nani damay genn wax ñaari at ci ginnaaw waxuma dama bëgg ngeen déglu ma xel bañ ma dégloo xol limay wax dafa am barke alquranu karim ma sonu na ci ar torop nak tay xale yëpp ngi lembal da bu ñëk ba ma ci nekk diko commencé pour te dire wali fekk na ko penc mi jami gay maag moom a tonto tonton medun duma ma ma fen jabaram la jami gay siif bërëb sabar fecc lu neex man sama sabar setul non, te mu non nako me do mu ma def defon tent ni def di affaire yi rafet walisa sa après dafa dem. dama ma fi contane na yekati ndax bobu soirée bi mi ngi jeex. ma dem bobu la ñëk yek kaw seen wali ma tok ay acc ci ginnaw ba yalla ni ma wone lek Sidi. may and ak mom parce que mom la xam moma wone ñi and nak lu bari xew. Mhm. mais nak and bo gis day am tàkkalikoo waye ci lu rafet. man Sidi même buñu bokul sax. man nag la laata dama ko bëgg kenn du ko laal nak mhm. li ñu reyante reyante kenn du laal Seydi parce que man du ma sëkk jëf xaw ma hypocrite foowu ma man li ñu ñi mën nii di xool nii di ko reeta on foo bëgg man loolu ma ko yarew ñi ma loolu moo tax boo seetloo sama waxin sax dañuy naan dama ci bañkat laa nag daway bañ doomu góor bu ne da nga war a bañ am looy jom bu dee bëgg nga dem waaye wax su ma la déggee dafa mel ni da nga ma sës ma ne la si jotewuñu dara comme nii mën nañ ko jote nii après ma dem ci wax dafa ma dem xam ne dañ may xatal du ma dem man lamba rama benn boîte artistes yi nag ñëpp laa sekk jàmm ku tëgg ma may envie damay naan sama mag bi fàndooy nañ dem wala dem soirée sénégalais mais lambar lambar rek ma fenn foofu dañ may xeeb soirée Pape Diouf bii passé rek dem na ma dem muy teral ma sam père jabaram teral ma jabaram doon ko baax ñu teral ma uuf ma mais maa gën a sonn man ci àddina ay waay maa sonn barke maa gën a Oh, eh, oh, sama yaay saaga yi doy na baal leen ma ay waay bonu ma dama sonn may bégal ay doomu aadama au fond man du ma bég te du ma bég may jooy rek man sama baat melul nii dama jooy ba mu dee chaque jour ma jooy ay waay lan laa leen def def ma kenn dara man lu dul sama problème nit du ma waxal leneen moom nag lañ may waxal dama juum man maa nangu yéen doomu góor waru koo def man nangu loolu man maa ànd ak yéen juum depuis boobu déggaatu leen ma ci dara. da nga def pause ndeysaan jëlaat.